Thank you. am bu baax. alhamdulilah. ah tey de damaa bëgg lool. Ah. waaw waaw tey damaa jàkkaarloowaat ak sunu. Euh, caméraman sunu caméraman bi. ndeysaan ma jaw comme ni ma koy waxee. wax nga dëgg waaw caméraman la. Mm-hmm. Euh, wax dëgg yàlla muy def lu rafet. ndeysaan di jël plan yi fu ne. Euh, di jàkkaarloo waa seen boxu. ndeysaan ah, fan yi nag moom ñu xawoon a kii. bër waaw. bay del mhm. ci wat bay del ci ci 7e émission sen 2 saison 2 bi saison 2 bi mu nek lu am solo ndeysaan nam nak ñi nga xam ci ne ñoo top ci ci ci ci ci sun mbokk internet yek ñep yoy yep rek ñu ngi leen di bégg di leen contané ndeysaan wa di leen wax ni la wal wer gi ñëwaat na mhm. mo ngi ni batay mhm. wa kay way kon baax na bu ko defee ñu nuyuwaat rek mbokk yi nga xam te maanaam depuis boobu ba léegi ñoo ñu topp ñoom tamit. Mhm. di leen wax ni leen namoon nañ leen lu bëree bëree bëri yàlla daa dogaloon nag ñu bëroon fan yi waaw bay doog a dellusiwaat tey ci juróom-ñaareelu numéro bi nga xam te ni maanaam mooy saison 2 bi. ndeysaan tey nag maanaam comme que dañ ni nay leer. Mhm. lépp daa war a leer naññi fii. waaw moo tax tey jii nii daal maanaam sawaay danoo war a leeral ba mu leeral daal di yaatal ba mu yaatu. li naan yokk cere daal fas yéene dolli ñeex. wallaay wallaay incha allah dëgg la waaw. waaw tey nag moom comme ni nga ko waxee. waaw waaw. dégg nga nag loo xam ni. Mhm. wax dëgg yàlla lu lu yéeme la. torop torop. xam nga Sénégal. Mhm. dafa am loo xam te ni man lu ma jaaxal la. moo jaaxal ñépp waaye nit ñi moom léegi. Mhm. képp koo daan gis muy womat xar. li ab xaj lay womat. doomeeraame rek. ah doome xaraame kese du leneen doome xaraam joo gis mhm. mu ngi jël ab xaj du ko wommat dégg nga mhm. yor xaj pare saay sax ngi ci koo xam day yor ñaar ba ñett léegi doxaan yi sax bu ñu koy def xale yu góor yi ni yor xaj amal la am na ñu yor juróomi xaj laa la wax te xaj moom ku nekk xam na ni maanaam kay yoroo xaj waaw xaj ba benn lan rek maanaam man damay laaj wallaay maanaam ban Sénégal la ñu nekk. Mhm. maanaam bu ñu demee tey ji nii maanaam ba doomee xaraam joo xamante ni tey jii maanaam mu am sañ-sañu. Mhm. yor maanaam xaw ma bul dog la. wallaay xaw ma pii pôl la. wallaay xaw ma zampol la xaw ma koréa la boo xamante ni maanaam tey. su nee bëreet. Mhm. mënoo koo téye sa baay mënu koo téye. wallaay wallaay xoolal ma loolu. te tey jii nii maanaam su màttee nit it du mujj fenn dañuy mujjee ñu ñus ko pigiru tatanoos. wallaay mën na faa jaaree sax di wallaay xam nga xam nga tey. waaw ab xaj Mhm. dafa am ñoo xamante ni ñoo ñooñu dañoo ko daan liggéey da gis ñoo xamante ni bu njëkk ba ba musaana mhm. Europe xaj mhm. ni da koy jaay ñu naan la ay xaalis su xaj baaxul ak donte loolu lépp sax xaalis moom xaalis la rek waaw ngi dégg bu leew baag yépp la gaa yi di utilise léegi daanaka am na bu leew yooy sax waaye xaalis bu xaj baag yépp moom daanaka lekk lay kii wala nga jënd ci loo sol wala foo tëdd kon bu xaj bi mën na ko waaye nit ñi boo gisee mag ñi daan wax loola la daan maytu loolu bon ndax ku ne xam na ne xaj jikkoom justul baaxut mën naa ñëw correct léegi jékki-jékki def li nga xam te ni moom mooy jukkoy xaj xam nga buñ demee maanaam ba ne la ab xaj waaw maanaam xaj moom daa tënk lépp mhm. xaj moom maanaam mooy xaj rek xaj xaje mhm. yaa ngi dégg maanaam te li ma ci jaaxal mooy mhm. gone yi dama ci gis gone yu ndaw yoo xam te ni maanaam seeni i bàyyi seen i bàyyi maanaam dañ leen a bàyyi ci la leen neex ndax maanaam gone gu ndaw xam te day ji maam yow sa baay dundalu la mhm. suuroo mhm. fun la fekk ngay dox say faara ngi feeñ uh-huh. doomee xaraam joo xam ne ni foo ko fekk ma nga yóolu yóolu mel ni ron gu nu ñambaas ba pare maanaam nga yor xaj boo xam ne ni moo la ëpp doole ëpp sa baay doole tey jii bu ñu woon bëreet mhm. seen waa kër ñépp kenn mënu ko jaatiyee yéen ak may dégg doome xaraam yi bàyyi leen seen nii ngeen nekkee laa la wax ay caaxaan waaw xaj yi dee leen ko yar ca kër ga wallaay bu guddi jotee ngeen di ko yeewu muy garde ah. waaye ab xaj maanaam du nekk ci biir dëkk bi di taxawaal yi lambar lambari ci biir nit ñi loolu du yoon ab xaj waaw bu bu njëkk waaw da ko daan yeewu ca kër ga waaw nit dina dugg ci kër gi ba génn doo xam ne xaja nga ci biir kër gi waaw yaa ngi dégg xaju ordinaire yi waaw yii lay gars yi daan teg ci buntu kër yi. bu ko defee yow boo doxantu sax. am dara lu ñu bàyyi ci kër gi kenn newu fa mu mën a mbaw ak yëngal. nga mën a daw nga mën a daw. mais léegi xale yu góor yu ndaw ndawaan yii. Mhm. war danoo roy tubaab yi. ba nga xamante ni tubaab yi sax rusatil noo yor xaj. yow ban tubaab nga gisati mu yorub xaj. ñoom sax soo leen yor xaju tuuti yi nga xam ne fii lañ leen di bokk xam da nga ko gis sax dàpp fawukaay dara wallaay wallaay fawukaay yooyu wallaay mais maanaam ah. ñun ci suñu jëmmi bopp ah. ñoo yoo xamante ni ah. ñun daal bu ñu xasee ba commencé di roy dañuy ma dàq rek man de man de man de doome xaram ju indi ab xaj sama kër naan da ngay doxaan si wallaahi dinaa la dóor bal ah. kooku moom ba awma ci dara bërki mu maire bi fii la toog di jaay gerte mm-hmm. fii ci butu dom moskoo gi mm-hmm. booy bi yor bol dog boobu ngay wax waaw bo maanaam maire bi ni muy jaayee gerte gi booy bi daal mm-hmm. am xale bu jigéen boo xam daa ñëw di waxaale di waxaale noonu booy bi di romb xool gi muy xool xale bu jigéen bi ak la xale bu jigéen bi sel euh, sol ni mu sexee xale bu jigéen doomi xaraam ñoom itam kenn demul ñu des mm-hmm. dégg nga am ni mu koy xool noonu rek fàcc ni daa yor xaj bi ndaka la daw attaqué maire bi maire bi ndeysaan mag la mënul daw oh. yeel bii fii te testosterone testosterone wii waaw billaay xaj yi ñooy doomi xaraam ak noo xam point testosterone maire bi la jàpp bi mu ko xëccee ba nii may xew mu ngi diri maire bi maire bi dégg nga yaram yu óom fépp fépp a yàqu. mooy li ma la wax moo tax ah, man la bul dog boo xam ne ni bu nee bëreet. attan noo ko sa bàyyi attan nu ko. wallaay da ngeen ko war a bàyyi. dëgg la sa waay. bu ko defee. ñu wax ci li nga xam te ni maanaam daal lëmbe Afrique jamono jii ñu toll. mooy lan maanaam nekkum njiitum réew. Ah. dem ba sam réew soxlaa la nga lànk kàndaare toog ci kaw. yaa ngi dégg. Uh-huh. toog ci kaw di nongi nongi mel ni hmm. ngalle loolu daa war a jeex fii ci Afrique. gis nga naa la xamal ñaar. waaw il faut nit ñi roy. ci ñu tedd ña. waaw gis nga ak nguur benn nguur a dul jeex mooy ba suñu borom. wallaahi waaye fii tuupare. waaw dégg maam ñu nag ñoom nii lu def. waaw fii ci Mali gii. jeex na des koy wax. waaw ah nu yéen rayante bu mitti yéeme na lool dégg nga maam gars yi wax nanu dem suuf dem guddi président bi ne du wàcc waaye mujjee na wàcc ba mu demee ba xam ni daanaka cëgg desatul jugg mu ne day wàcc naan day woote fair play wootewul benn fair play laa la wax dama na waaw dañoo war a bàyyi seen caaxaan militaire yaa dem fekk fa mu toog ñu poñe ko noq ci biti wallaahi daal di jël nguur ga téye ko ndax militaire yi xam na ni askan wee leen gën a ñor président benn personne waaw noo toog di rey population bu lëmm waa ñi imbécile waay imbécile na ah, ñoom bëgg yaakaar ni daal nguur daal nu la rek nga koy ah. defee loolu teguwul fenn. du yoon dama ni la. ah da ngay respecté leen citoyen yi nga xam te ne ñoo jël seeni i carte d'identité woote leen. mooy yoon. yaa ngi may dégg. mooy yoon. xam nga ni yow ah. nit ñi di rang. Mm-hmm. ah ci élection yi passé waaw damaa ranga ranga ranga rang dégg nga maam ba sama énergie daa jeex tàq. waaw nga gis ci ay mag ñëpp di rang ah. amuñu lenn luy def loolu daal yow daal yaakaar ne daal yow yaay moom population bi. waaw nu la neex ngay def toog. pale ba ñu lay yóbbu fu la neex ñu lay escorcher nga yaakaar ne yow yaa moom sa bopp yow yaa moom nit ñi yaay deful la neex. moo tax tegu leen ko fenn. moo tax nag jamono jii ñu toll nii. waaw maanaam population yëpp la ñuy ñaaxaat bu baax a baax. Mhm. dee leen xool ñi ngeen di fal. Mhm. maanaam bu siinum xol tàng rek. ngeen dikk fekk koo xam te ni maanaam mënut daa tëj. Uh-huh. ngeen di ko yaa fi sësay tax a falu. maanaam fii ku fi yaa fi sës tax a fal. Mhm. population bi ci jafe-jafe la mujj. dee leen tànn ku amum njàng. wallaay ku bëgg askan wi te yërëm leen. looloo fi jafe nag. waaw politiciens yi ma gis. waaw barke Rasulullah ñoo xaj yi doon wax sànq ñoo yem. amuñu. cinq la rek même benn la. déggoo li ma la moo tax man la fi ñu toll nii population bi laay ñaaxaat. Ah. bala ñuy wote. Mhm. nañu xool ki ni woteel bu baax bu ñu demee ba gisuñu lu ñu xam. Mhm. nañ leen seen i carte ñu annulé wote. lenn la naa lu xam. waaw dégg na dégg naa saway kii yaa ngi toj internet internet baa ngi toj de. waaye li ngay wax face beeg youtube beeg fépp a ngi toj. lu fa xewati. nanu dem foofu ñëw xool. ah aywa kon ñu dem xool te ñëwaat. fi ma koy waxee. waaw wax ñu rek nu mu demee. Euh, am na benn bis. xëy na moom dafa demoon voyage. am benn xaritam boo xam ne ñëw na seet si ma si biir kër gi. moom waaw xaritam. Mhm. guddee na fa nag ma ne ko. Euh, ah tey moom soxna si comme nekku fi. te guddee nga te mënuma laa yóbbu it. Mhm. xëy na mën nga fanaan. Euh, bis boobu bi mu fi naa naanee ah nit ku nekk booy wax yàlla tax ñuy wax mhm. def nañ fa loo xam ne wax dëgg yàlla. yow neexuñu yow ah. ci en plus ci kaw xarit yow nga ne ma. non non yow non xaaral non non sëñ bi tax ma wax la non xam naa ne seen émission ngeen di def mais tamit yow Mbissane est-ce que yow nit nga. la ilaha kon lii xew. xoolal doole xaraam la illa illa waaye te teggin yi te teggin kañ la jeex ci fii Sénégal maanaam doomee xaram mënul passé way misaal nga yor sa jabar nga yor sa jabar maanaam dem sifaay xaritam ba pare ñëw taxaw devant public ndeysaan di ko wax wallaahi te man li ma gën a métti ma gën billaahi jabaram ji jabaram jii nii mu ko def nii su doon mën a wallaahi su doon mën a su boobaa du fanaanoo ay ak kii moom xam nga ki sax du fa ngóor a de manam mom mi sax xale bu ah, jigen bi waaw maanaam ni ko defé dudul ni xam nga ni gënoon a baax ah maanaam bàyyi ba guddi ba ñu tëdd waaw ko li nga wax sank noko waxé waxee yu yu mu demee noonu mu tàmbalee si maanaam mu commencé expliquer ak yooyu nga ne ko graw djéggal na bu ngeen teudé ba guddi kudel sa paaka bu ndew mbassab lañ ci daggal bagage yi kay <coughs> nee ko tàpp ca xerante nañ wacc ko muy lagar lagar rek mom di do dama la bu ko sax xaram piir la la wax misan do doone xaj la la wax ngi misan mi waay imbécile la waay imbécile la ah, waay yow dégg nga mam yow misan war nga yow ah, jël néegamam sa xaritum ci sa soxna ah amul deret loo koy def néegamam di ko tëddee di ko contact direct légui lima leer ba leer moy manam tay yi ni xarit ba day dal yab jabar ji ndax li ko yabé moy manam sa jëkkër joxoo ko lu doy ba mu mujj ñëw ci man ni manam ma koy jox li koy doy té nga xam nga jigéen yi lé léeg nga ci imbécile yoo xam te ay doomé xaram la dañ naan ma koy wëndeel diko wëlbeuti diko muy përie que ce pas jale ñoko ko defi mbir dëgg la dëgg la yaa ngi dégg moom kay ay imbécile la te nag ndeysaan boo gisee nag ci <laughs> soxna ci mhm. ah, dégg nga maam bu ko rombé nak diko ko man ma man ma am borom kër di ko dosé ko di ko di ko def yu mel sa borom kër yow la nga ca ñam sa sa xarit bi ñam na ko imbécile la xaram dëgg la góor yu mel ni misaan mii waxtu waa mat sa waay mhm. a eh, ba ba ba bi leexi misaan mii boo ko lay def ci kaso bi te fi mu toll bi nii maanaam ah. mel man ah. ma xaw a noyé ah waaw bu nekkee ñoo ci ànd nag am nga sens waaw am nga sens yow ko defee daal waaw aca kon ñu santaat gars yi gërëmaat leen rek waaw <coughs> waaye nag sa kenn du suñu amet kan borom mbaaleet ndeysaan sëñ Amet Kuyaate nag Macangaay Macangaay mexe kenn du moom waaw doomu nday Cheikh Kuyaate wallaahi wallaahi ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen siyaar di leen bëggee jërëjëf sëñ Amet Kan jërëjëf waaw xaw nañ faa gëj nag waaye ñoo ngi ci yoon yi di ñëwaat bu soobee yàlla waaw dinañ ñëwaat insha allah ñu yaatal ba mu gën a yaatu comme na nga ko daan defee sëñ Amet Kan borom mbaaleen mhm. damaa bëgg mhm. seen box mhm. mu mel ni télé yu mag yi RFI RFI wax damaa xeeb yu ndaw ndawaan France 24 xam naa ne man kenn yow waaw sëñ Ahmed Kuyaate mhm. boroom ngaay waaw suñ xarit la barki yonent bi yow damaa bëgg nga ñëw ba fii sax ñu dal la sëñ Ahmed Kuyaate dinañ ko invité mu ñëw fii daaw da waaj moom dina ñëw lu yàggul dara fii nii def fi ñaan bàyyi fi xéwal ndax kenn du moom mook sëñ Mun Njaay kon ñu ngi leen di bëggee di leen kontaane di bëggee waat ñëpp ñoo xam ne ñoo doon topp ci émission bi di leen wax ni leen man nag maa ngi dem misaan laay seet ëpp naa def sawaay te ngaa bàyyi misaan ah baax na